di ko sante bu baakha baax di wax ñëpp juma mubarak di julli nak ci sayyidina rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam. ki nga xam moy sang-sang yi ah te yalla def ko suñu kay dal nañu yalla tass ci barkem tass ñu ci leeram ba bepp kaddu buñ fi jël ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim te eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ah ñun nak ñi ngi ñëw macha allah di euh, présenter ñi nga xam ñom la andal muy suñu porte parole Elimane Mbaye mi nga xam daf maa jébbal gi ndax en général mo tam di wax mu représenter fi suñu présidente Fabira mi nga xam nak wax dëgg yalla xelam yépp dafa nekkon pour ñew waaye lu jaam di bëgg rek ak yàlla li muy dogal di présenter soxna maam jaara bi nga xam ne mooy suñu coordonnatrice bi nga xam ne moom moo nekk géejawaay coiffé ko soxna aw Fall mi nga xam ne moo nekk coordonnatrice au niveau des Scat Urbam moom it man nag maa ngi tudd it soxna Mbacco Camara bokk ci membre délégation bi di assister sama sœur de cœur bale di soxna maam jaara ginnaaw loolu ñi ngi ñëw fii ci Diourbel plateforme Bay Sa Waar yóbbante ñu fi ñu ñëw te ku xam plateforme Bay Sa Waar fii ci Diourbel c'est grâce à la grande dame Ndeye Khar mi nga xam ni saa su ne elle ne ménage aucun effort amul benn effort boo xam ne da koy ménager pour rek jàppalit ñi nga xam ne dañuy suqali doomu aadama rawatina nag jigéen ñi waaye li nga xam ne moom mooy def différence su plateforme bay sa waar du ay jigéen rek ñoo ci nekk ay góor dañ cee nekk ay mag dañ cee nekk ay ndaw dañ cee nekk ah ki ko teg nag li ñuy wax rek di la grande diva man ma koy woowee la lion intergalactique boo déggee ñu ne lion intergalactique mooy galaxie yi nekk ci biir àdduna bi yëpp ci àdduna yëpp moom dafa teg tànkam te dara ñoru ko li ko ñor rek mooy suqali doomu aadama muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci loolu sax moo tax continent boo dem ña fa ndax xam nga dañuy ne toujours mu bay sa waar Afrique mais dafa jégg Afrique ndax boo demee États-Unis ma nga fa soo demee Europe ma fa soo demee asi ma fa soo ñëwee Océanie ma nga fa te loolu day seet fa koom-koom nekk mu jële ko fa indi ko pour bépp doomu aadama boo xam ne mi ngi nekk ci doomu Afrique ñu xam yow lan ngay def te li ngay def ban njëriñ la lay apporteel tàll ci àdduna bi yépp sab liggéey sab taxawaay ba ñépp mën laa xam mu ànd ci toujours rek ak VF bi nga xam ne soxna Ndeye xaar moom itam mélangé wul aucun effort parce que Jurbel daf ko ñor te waa Jurbel dañ ko ñor Jurbel daf ko ñor te waa Jurbel daf ko ñor te su ma ko waxee rek ñii duñu ma bàyyi manar ndax ci suba rek loolu la doon waxtaanee liñ koy ñaanal rek mooy yàlla na yàlla àggali mbébétam ci yéene bi nga xam ne am na ko ci yéen macha allah ba ku nekk ca la ñuy wax autonomisation de la femme parce que ay femme rek ñoo fi nekk à part suñu góor ah ba ngeen yegg ci ba ku nekk mën a am koom-koomu boppam ci ñaqam ndax ci loolu lay dox ànd ci nag suñu la grande lionne ñu koy wax euh, faatu Dramé Fabira mi nga xam ni koo koy borom FIPA te FIPA bu ñu ko waxee mooy foire internationale des produits africains te bu ñu waxee foire mooy. banqaas bi nga xam ni nit ñaa nga fa da ca liggéey di def seeni mënin ci seen wàllu liggéey ñoo di ko fa jaay ñu am koom mu leen di présenter ay doomu aadama yoo xam ne ay partenaires lañ dañ leen di ci seen koom ñoom yi dañu yor ci ñu mën a rencontrer leen ba ñoom it am luñ leen apporter te kooku koy def ku ne dafa dem ba fàtte boppam kon mbokk yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ndey xaar ñi ngi lay remercier bu baax parce que machallah allah dal bi neex na ndax ñoo la yé 9 h du matin te ba nga ñëwé ba légui togo dañoo bu suuf ama nak man kamara la ma and ak mbayeen yeeg jóobeen ni and ak faaleen ni machallah allah ah waxu ñu dara mu tegal ñu agni noy tek nu nag ci kilim motax yegu ñu tangoru jurbel te ñepp xam jurbel dafa tang kon bok yal na fay yal na fay xol waye nak yal yalla fay jëf ci barke sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. te yene bi nga am ak mbebet bi nga am yalna na ko yalla motali ci say ñoon muy wa jurbel sha allah ndax xamna ni yang ci liggey lu bari nak te yalla dina la nga ànd cee nag plateform bay sa waar li ñu wax rek plateforme bay sa waar wéeruwaay la mu nekk wéeruwaay bu dëgër nag wéeruwaay bu am fulla wéeruwaay bu am fayda ndax ka yor dafa am fulla dafa am fayda tàggat ñu nag ñun comité d'organisation bi ak bépp membre ba ca nekk ci fulla ak ci fayda moo tax nag soo leen paree waxtaan na leen sen president mom la ko meuna tuddé mm-hmm. sen seen ki nga xamni mo bëgg lu baax ci yeen ba ngeen xamni di ngeen meuna intégrer ci bir plateforme Bay Sa Waar allah rabbi du ma sori ci kaddu gi ndax comme ni faral di wax rek kenn du la jox lepp nga jël lepp borom dëkk bi dalal ñu mu nday xaar ñu jox ko kàddu gi wasalaam jërëjëf. bismillah inna waliyalla ma ngi sant yalla bu baax di gërëm sama ñaari wajur gërëm sama borom kër di dalal jamm suñu gan yi nga xamantene ni ñoo fi ñew ci suba ba légui ñu ngi fi wax dëgg yalla bayyi seen lepp def ay kilomètre jóge ba Dakar da di ñew wayé nak toujours ku nekk rek say mbokk man kër yelli gii buñ né ñaaré buñ né Afrique luñ mënti wax fi ma dëkk rek lay safé ndax sama mbokk rek ñoo mëna taxaw sédel ma sama mbokk rek ñoo mëna xéxal donc ñi fi tok ñi ñëpp ay la yéwén du ma seen présidente pourquoi du ma seen présidente parce que kenn ku nekk ci ñoom présidente nga kenn ku nekk ci ñoom sa kër yaa koy ci kenn ku nekk ci ñoom la ngay am di ko dugal ci sa poos man joxuma la ko yaa koy ñafe ndax dañuy teel a xëy di guddee wàcc di dimbale seen borom kër yi koo nekk benn waaw tolluwuñu nii de xam nga dañoo dañoo yëgle woon ne dañuy def sargal ndax damaa jóge foire ñëw ñu teg ci ñaari fan Elimane woo ma ne ma présidente nee na liggéey bu mucc ayib bi nga def ren dalay sargal si te ci biir sargal bi comme yow yaay ñëw ci plateforme bay sa waar daanaka yaa ñu fa nekkal te chaque jour ñu ngi lay nga naan femmes yi femmes yi dinañ ñëw ci say femmes xool nu ñu organiser ñoom ba boole leen ci liggéey bi ñu ciy mën di gis seen bopp donc ci biir loolu ñu waajal ko lool as Diop du bàyyi ma fen parce que dañ ne woon dañuy bâche biti jël laa def décoration ak yëpp def ko noo xamante ne nii réseaux sociaux ñëpp jot ci journaliste yi ñoom Baye Serigne mu naroon nekk événement bu doy waar xëy na sax bu amoon du du gën far yàlla def président xëy di ñëw magam bu mbokkal day bàyyi daal di wàññeeku ñu fomm ko bi ma Elimane waxee vendredi ba ca topp fekk maa ngi jóge principal di ñëw ci yoon bi mu woo ma ma ne ko ma ne maa ngi nii principal dama demoon rendez-vous parce que fan yëpp dama tëdd laa demoon urgence ñu ne ma da dem principal ñu xool daal ci yoon bi ma sax wax bu baax bu mu ñëwee mu woowaat ma avant-hier ne ma yaa ngi tane ma ne ko maa ngi tane mu ne ma dañu bëggoon def ko benn yoon parce que buñ ko waajee président du toog day tukki rek ma ne ko waa amul benn problème ma ne ko ah maa ngi tane de mais daal bu ma gënoon a tane it mu gën mu ne ma nañ ko def rek balaa boobu sax di nga tane ba démb mu woo ma confirmé ma ma ne ko koñ bi de duma ko génn waa koñ bi dinaa leen ko yëgal parce que damaa yëgle woon bu njëkk ba am ndog-ndog bii yoon bëggumaa yëgle ndax damaa ragal mané légui dina wo fam koñ bi samay dëkkandoo ñu ñëw suba nak dafa am ku wara def fi nganalé donc amna ci ay fam yo xamné ne ñu parce que dañ koy jappalé mom tamit ci limi def té du ñak amna ñeneen ñu ñëw ci kanam tamit mais dal li mëna wax moy man sama jëm ji ñoruma man jigen ñi la bëgg ñu jappalé len su len jappalé man ngeen di jappalé parce que xam nga lan motax mu neex ñu ci bëri samay wuju peccor ga la ñen ñi samay njëkkale ñen ñi samay lañ mais xeebuñu ma benn yoon wax dëgg fa yàlla te nag wax dëgg fa yàlla aw ma luñ amul mënuma luñ mënul dadi yàlla mooy dogal xëy na man fa may dem yépp ñoom yàlla man la nattu may dem li ma leen di wax chaque jour xamul leen dem man la yàlla dogal may dem su ma demee lu ma dajal dinaa ko indi te ba may ba ñuy toog fii tamit ci saal bi keroog di taxawal dama ne leen nañ toog lu ma gis dinaa ko indi mu waral seen ñëw bi présidente ñu ne tamit daf may sargal ma dee xamal ne gis nga femme yu am fulla am fayda am jom li ngay wax ne mo ne ci président lu ko raw mo nek ci ñi ñi lebuñu sàccuñu fenuñu moyuñu taxawalu taxawaaluwuñu waaw ah damay wax li am xam nga luñu xam fo leen fek ñi ngi seug ci seen sër yi ñi ngi ci fer yi ñi ngi ci commerce bi ñi ngi ci luuma yi buñu paré ñi ngi taaj ceeb ba mu neex topato seen jëkkër keen déggu leen ci dara nak namuñu dara man ci ñom la roy ndax man mom xam nga man ko xam-xam ne man mom man dama perdi mais ci ñom la roy chaque jour bu ma tourné gis len rek daal di yokkat jom tuuti mi ngi non kon nak lu len leen dimbalee man ngeen ko defal mànkoo nañ nek nañ ben ñi ngi liggéey xaaruñu kenn de mais ku ñëw dimbalé len tamit ñu jël di len sante di len gërëm ci seen taxawaay ndax mënu nañ len wo aussi du ngeen ñëw mais chaque jour rek bu ñu leen woowee ngeen ñëw kon dañ len di sante bu baax di len gërëm di len wax ne len délégation bi ñom bu ñu waxee di ngeen xam ñi ñoy ñan donc surtout nak sama góor sama góor dama koy bàyyi mu présenter bopam mom foor ba ba mu jeex sama sama stand mo nekkoon bureau ku koy wër sax fa nga koy wërsé moy eliman borom monument de la renaissance mom tay kuy dugg monument de la renaissance bo jaaru ci mom do dugg yakarna lool xam nañ ko kon dama lay délo cadeau gi su ko défé yow tamit nga daal di <laughs> ci loolu lañu nekk di waxtaan ci suba ba légui ci loolu la nekk di waxtaan ak ñun nan ngeen di def ba mëna jappalé sama wa kër parce que ay wa këram ngeen té non na leen tuddee du wax faami de samay waa kër parce que lim fi cité yëpp ay xaritam ay wujju percoogam ay njëkkeem ay rakkam ay magam te loolu dafa am solo te yaakaar naa ne fi mu bëgg a yóbbu moo sori parce que nag plateforme Bay Sa Waar organiser wu dara au national li mu organiser yëpp international la li mu organiser foire yi ñuy dem yëpp international la moo tax ñu tuddee ko foire international des produits africains parce que lépp lu muy def ay étranger dañuy ñëw waye ñun dañuy dem ci bi plateforme bob ah machallah xamna ni porte parole dina ci ñew ndax amna ay comme yo xamni tay buñu leen ko defaralee di ngeen ci mëna gis seen bop lu ba lu bari seen sœur yoy ngeen di ñaw té ñu soxla ko lool nak bëgg ko torop nak yeen yoy ngeen def non ah machallah dañ ka bëgg nak xam nga les petits pains électriques là. <laughs> dañ ko bëgg dañ ko bëgg dafa rafet xam nga yeen sa dañuy bëgg di moderniser yëf yi di jël ay robbu de nuit ak yu démé nonu mais xam nga fému tradition dafa am té ñun yoy dañ ko soxla yi ñuy ñaw ak yoy ak yi ñuy nas yoy yi dañ ko bëgg dañ ko bëgg waaw no dañ ko bëgg ak rob yi macha allah dañ ko bëgg <laughs> non parce que da ngeen def lu reuy té présidente macha allah té présidente loolu la bëgg lu ñuy défaré fi ñun suñuy kom di yob bañ na ko ba booy dem foire international loolu la leen di wax produit africain dañ ko soxla rawatina yu Sénégal muy suñuy ñaw muy suñuy nas muy suñuy togg muy suñu transformation dañ ko soxla te kii loolu la bëgg ngeen di jël avion di dem te plateforme bay sawaar macha allah dina ci ko gunge ba mu neex ba ku ci mësuta am passeport di nga am passeport bu soobee yàlla genn wàll gi yëpp non di ngeen jël avion ndax présidente loolu mooy taxawaayam présidente loolu mooy taxawaayam day fekk fu dara amul mu def fa dara fekk fu dara am mu yokk fa dara te nit nag njiit booy taxaw da ngay fàtte sa bopp gestu ñu nga xam ne ñoo topp sa gannaaw nga yóbbu leen jële leen fii yóbbu leen fële te macha allah ñun suñu présidente Fabira loolu mooy taxawaayam. te dina ci and ak nday xaar nak ba mu neex bu soobe yalla mu and ci waye nag xamna ni ko ma ngay guddi te yeen ñep ku nekk am nga loy bëgg wax ah, dañuy jox dañuy joxat parole bi assistance rek kep ku ci bëgg sanni rek sha allah ñu jox ko bismillah, wa <laughs> rahmatullah maa ngi nuyu ñep ci kenn ku ne sa tour ak sa sant di sant yalla bu baax nak di sant tamit ci fi ñu dajale yalla mu doon suñu muju dajale du doolee maam Sera Fall ah, ñu ngi koy wax nag soxna Seyna bu fay yaay Fall waaw man moom may yaay Fallu mbootaay bi waaw wu neex di ànd ak samay mag ak samay njëkke ak samay rak ginnaaw lool nag diggaa ñu ngi leen di sant yéen it di leen gërëm diggaa ci déplacement bi nag wax dëgg ndax Dakar sori na lool ngeen ñëw fekk suñu fii fekk si suñu yumpaañ bu baax jii ndax moom ku ñàkk ñaani ngi nii loolu mom ñu loolu ñu ngi leen koy séra bu baax ku ñak ñaari ngi ni ko xamni lu mu bëgg bëggal nako ñun ñepp comme ni nga ko rek macha allah ndax man mi na man mi maa ci kër ak sama njëkkalee toog li ci dess ñepp ay njëkkeem nak ay wujju peccoo bom la waaye wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee lu mu lu mu am naan man damay dem wuti lu mu am bokk ko yéen ndax ma bëgg kenn ku ne demal sa bop xam nga loolu dafa rëy <laughs> barki Serigne Touba wóor na Serigne Touba Mbacké fu mu toll mi ngi may woo naan ma fan ngeen toll dee leen def nii dee leen def nii ndax moom mënoon nanoo booloo ba pare dem bàyyi ñu waaye wax dëgg yàlla def ko danoo booloo ba pare topp si nag di ñu di ñu saytu bu baax a baax a baax fu mu toll mu naan fu leen toll dee leen doxalee nii dee leen defee nii kon ñun mënuñu koo fay loolu moom wax dëgg yàlla maa ngi leen koy seere bu baax wax dëgg yàlla ñun daal dañ koy ñaan daal lépp lu mu bëgg daal ci mbootaay gi lépp lu mu bëgg suñu yàlla na ko maam Cheikh Fall def ak Serigne Touba mi nga xam ne mooy lépp ak Seydina Mohamed jërë ngeen jëf yéen it macha allah. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sargal ñëpp nday xaar ñun amuñu sa fay. yow kenn gënu la ndax koñ bi koñ bi yëpp famille la ñu doon ay peccar gu ñun ñëpp ñu fi doon suñuy njëkkër ak suñuy jarbaatu jëkkër bariwul ku ñàkk kiñaan nga ndax ñàkk kiñaan ñaan moo doon nga nekk niw ci koñ tekk say peccar ko ak say am di jàmm nga ne leen kaa leen ñu liggéey ndax bu la neexoon nga am li nga am dem di liggéey di wut di def ci sa kër gi te ñu ko wax waaye dangaa ñëw ñi toogoon di nelaw nga yee leen ñi nga fekkoon ñuy liggéey nga dolli leen macha allah man de awma sa fay ak ñun ñi toog man duma tricher duma waxal nit lu nekkul ci ma ci man ndax wax dëgg yàlla bi nekkee ci koñ bii ba tey defoo dara bàyyi waxoo dara tamit bàyyi ñu loo mun lu mun dugg ci sa kër gi woo nga yaa say mi wax ko ko mu ñëw wax ñu ko ñun ñëpp bu dee lu ñu la jox bu doon benn saako soble di nga ko séddale ku ne ñaari doom nga ne ko am te bu la neexoon nga teg waañ wee jenga di togg di yokk te defoo ko man da yow rek laay sant la di la nga bëgg sa kër gi bëgg ko sa njaboot yàlla na la ko yàlla defal li nga bëgg ci lii nga lii nga jublu nii li nga ci bëgg ak yéene gi nga ci am yàlla ñu yàlla sagal ba buñ la rusloo li nga ko bëggee ñu defal la ko maa ngi sant bu baax rahmaan rahim asubillahi mina seytaani rajim ñu julli ci yàlla sant yonent bi di gërëm nag ndey xaar fay mii ndax lekkul dara bàyyi ñu comme ni ndey la wax rek lekkul dara bàyyi ñu jëlul dara bàyyi ñu ndax lu mu am lu ne rekk bokk na ko waa koñ bi ñun amuñu fayam moom la ñuy sant di ko gërëm ci sant yéen ñii nag ànd ak moom ndax bu ngeen ko jàppalewutoon du ñu mën a jox ñun bu fekkante ne dangeen koy jàppale mu tëye ko ci këram gi it kon bu ngeen ñëwee du ngeen fekk lii waaye macha allah lu mu am bokk na ko doomu aadama yi day joxe bay joxe ci ñaqam barki sëriñ Fàllu ñu di ko ñaanal nag ndam ak taysir rek yàlla fayal la boppam barki sëriñ Fàllu ñu kalaame la ak sëñ Fàllu yal na la fay barki sëñ Fàllu loolu rek laa ci ji fa jabar waaye li may jigéen Assane sama càmmeñ moom laa fa yebal e dama ne boo ne jeeg bu ci nekk di yëngali mbaggam waaye waxuma ak ñoom xaar sama jéeg bi laay bëgg a waxal soo nee jéeg bu ci nekk di yëngali mbagam waaye waxu maak ñoom xaar sama jéeg bi laay bëgg a waxal soo nee jéeg bu ci nekk di yëngali mbagam waaye waxu ñoom xaar sama jéeg bi laay bëgg a waxal eh doxal fekem de eh, nga dolli doxal doxal ne la ñoom eh eh e loolu neex na ma ne ko lo waaye nag waaye nag waaye nag ki nga xamné tay yé mo ñu ginaar bu neex eh, lé wala wax rek අවුජු නයෝ නයෝ දෙක නකාරු ඥානක් මේ නයෝ bëgg lek dara desul de li xolal ah anu man de eh, xaw and nga ya, man dal xolal man euh yaay faal man dal camara la sant te sama valise la tek sañ ma summé rek ma sol benen man mom dawuma ci dara kon bok mam soxna njaay jaata njaay yaay borom senegal njaay yaay borom dakaru njaay sa lepp neex na machallah say ginaar sax nah. say ginaar saf na ah say marinade saf na nga bëggoon ceebu jën sax da kaa mujjee dandu fële <laughs> kon boog ñu lay jaajëfal macha allah ci li nga xam ne tegal nga ñu ko waaw. Ah. gis nga lii lii nii mu def nii da ngeen toog nii mu def ko chaque jour noonu la ñuy defal dañuy toog mën a xool leen seen téléphone dugalal naa leen yàlla na sa jàmm yàgg ca kaw ca kamit rek. <laughs> amin amin pas. que ah ndeysaan 50 millions maa ko def ci Fabira xoolal nag ñun ko ñu dóor ñu dóor la de baax na loolu moom ñuy waxaat la ku ñu rek ñu la ah ma bañ mobiliser waat kàddu gi rek dama ànd ak nag samay ñooñ ñi kan nga xam ne tey ñoo taal ndakaaru njaay boo ci banlieue ya fekk ñuy allah te dara ñoru leen fu Fabira tek tànkam rek ña fay tek sen tank te xam nga nit boy jital da ngay bëgg yaata tax ki tay bu yaata lu lor comme ni ngeen ko waxee ni kon ñun duñ ci ex si kon da ngeen teud nelaw te ñun ki ñu yoni nelaw dafa jeex ci ñun doo ko tal boy and ak mom do tala nelaw ku wedd laaj ko ndey xaar do tala nelaw soxna jaara wallahi ndeysaan su ñëwee boo ko tegee tëggee ba bala nga indi lay def maam Diarra bàyyi ma jébbal gi rek yow mi nga xam yaa ah, xam plateforme bay sa ah borom paraxaan kii nag moy. Eh, man mooy. Eh. asalaamaaleykum mi ñu ngi leen di nuyu yéen waa Jurbel jéegi Jurbel yu foros yi ak ñoo mais man man man lu rar lay deg ni xam nga nekkoon naa fi quartier ker Cheikh xam naa waa Jurbel waaye nag dama leena a mës xam ci fulla ak fayda ak jom ak ngor jaar na fi ci quartier ker Cheikh ci wetu kàdd ga ma len di nuyu nak di nuyu suñu kilifa gi nga andal muy iliman bay nek euh, porte-parole plateforme bay Sa di nuyu ndey Xaar sunu sister sunu xarit di nuyu mbacho sama mak sama xarit ma sama ak sama mak ak sama kilifa ñu ñëw fekk ci nday xaar fi ci dëkk bi nga xamne tay moy Jurbel ñu ñëw nak ak fierté ñew ak mbekté ñew ak kontante ki ñu yónni nak ñor ñu lool na pikir nga pikir mom buñ la ko douté mom di nga ñam-ñam ñun Fabira non la mel ci ñun mo raw pikir ci ñun bu ñu yónnee dañuy daw ba xexal ñun ñoo yewa kër gi tay ndax liko waral moy da di jambar di daanan nekk femme boo xam ni grande dame boo xam ni àddina yëpp a ko xam ci liggéey ci jom ci ngor ci fulla ci fayda mu ñëw tey yónni ñu fii ci Ndeye Khar ci Jurbel ak i faamam ñu ñëw fekk si leen nag am mbégte bu baax a baax ndax dañu yendu tey yendu boo xam ne yendu bu mucc ayib la ñu accueillir ñu gane lañu teg ñu ci kilim di ñu nabb nabbee lu ñu neex tey dund nañ ko fii ci Jurbel ñu am mbégte boo yaatoo yaatu ci Ndeye Khar ak i mbokkam ak i dëkkandoom vraiment ñuy wax ni rek ñi ngi santaat yàlla julli ci yonent bi moom la ñu war di jiital saa su nekk sant suñuy ñaari waajur mais bu nu kontaanee nun dañuy rabaxu rek soog a sant yal na nu yàlla di jéggal ndax li nu bégloo mooy danoo ñëw tey fekk fi ñoo xamante ni danoo gis ci yéen li ñuy naan bokk ndey bokk baay mu nek nuko ko nuko tubab di waxe tii ñoo teel la force dee ma dimbali ci tubab yi wala yaa ngi dégg ma gis ko fi ci Jurbel tay muy ngeen bokk nday bokk bay ta lolu moy adina bu ñu autonome dem ci kanam ñu fo fami bokk ndey bokk ñun nak ñu and ak plateforme bay sa ay jambar nek ci biir ñuy dox ci walu foar di dox ci walu autonome ñi ñi def ba jigen ñi autonome di dox ci nu ñuy def ba sunu sang yi tey nekk ay boroom kër yoo xam ne jaaxle day jeex ci ñoom di dox ci bépp xale boo xam ne tey doon nga nekk ci mbedd mi di wër di taxawaalu sa yaay wutalu la benn métier xamoo loo war a def plateforme bay sa waar dina la for sang la ba nga set wan la yoonu liggéey ba nga mën a tegu ci yoon bay def international ci àddina bi kon kooku tey bu ñu àndeek moom suñu yónnee dañuy daw Fabira nekk quelqu'un boo xam ne dañuy sant yalla su suñu xamanté ak mom ak and bi and ak mom ndax bi ñu ànd ak mom ba légui ñu nelaw yi nekk won xam nga amna koku fi wax sank ne nday xaar da leena fekkon ngeen ni nelaw mu yelen ñun tam Fabira noonu def fekkon ñi nelaw mu yeñu tamal ñu liggey tamal ñu gore di dinu may lenn lu dul gen leen ngeen daan seen doole dimbale seen bop ak seen famille ak seen njaboot moo jambar jojo nga dem tay yëkëti di ma may nga wan ma ni mi ñuy nappe moo ma ko gënal te loolu la ñu jàngal mu nekk tey koo xamante ni yàlla da koo baaxal lool bari loo ko yërmande lool ci jigéen ñi ak xale yi mag ñi ak ndaw ñi foire internationale nag yaakaar naa mbaa wax na leen ko sànq kenn ku ne mën nga cee bokk ndax ndaxte ku xeebul sa entreprise bu dee gàtte caaf sax ngay jaay boo ko gëmee bu yàggee yàlla fekk la fa nga mën a tey di yéeg ci avion yi di dem di ñëw jigéen ju nekk na gëm ni ñun plateforme Bay Sa War ci li ñu nekk suñu kilifa nekk ci muy di di wër àddina bi di wuti di indil Sénégal kenn ku nekk ci yéen mën na ko def ni ngeen koy defee mooy grâce à Ndeye Khar mii ngeen di gis tey muy daw di mel ni Fabira Dramé ndax Fabira dama naan jàmbaar doo koy ànd ak moom ku yéex du ànd ak moom kuy tëdd du nelaw di ànd ak moom ku xamul àddina du ànd ak moom tey moom mii jàmbaaram ndaanaanam teg ci di mbokkam tey looloo waral mu mel ni moom tey dama koy xoole Fabira ndax tey da ngeen wax lu am solo day daw di wuti fu nekk di daw di leen indi Tafa Birane noonu lay dundee ak askanam noonu lay dundee ak membre yi nga xam ne ñu ngi biir mu Bay sawaar War kon tey Ndeye xaar bu ñëwee bëgg leen a intégré biir plateforme Bay sawaar bu boobaa di ngeen ci bénéficié wu lu baree bari ndax yaakaar naa avant tey jii ñuy jël avion nit ku nekk am na loo war a jàng ci sa àddina te Fabira mi ngi ci formation yi Fabira tey mi ngi jàngal jigéen ñi nan la ñuy defaree savon nan la ñuy defaree eau nan la ñuy defaree madaar lépp li nga xam ne rek jigéen ñi mën nañ koo liggéey ba gis seen bopp tey mi ngi leen di wan yoon bi ëllëg bu ñu fiy ñëw formation la ñuy ñëw defal si leen ko ànd ak suñuy formatrice ñëw ngeen woo Jurbel gépp ñu tëgg ko fii defal leen formation ngeen xool ni plateforme Bay Sa War wute naag plateforme yu baree bari wute naag groupe yu baree bari ndax ci wàllu liggéeyam mooy tey su ma àndeek yow bul toog bul ni yaaj liggéeyal bul xeeb benn entreprise bi nga xam ne yàlla jox na la ko ngay jaay jën yaa xam ngay jaay caaf yaa xam ngay jaay beñe loo mën a jàpp boo gëmee ni lii war naa ci mën a tekk rek yàlla mën na laa dimbali loolu la plateforme bi bëgg jigéen ñëpp di ci bàyyi xel ñuy wax ne nag ñun suñu ñëw fii ci Diourbel li gën a tax mu nekk fierté ci ñun mooy jëmm ji toog ku nekk xam na ni télévision bi tey mu ubbi fii ci Diourbel ak li ko wër mënoon na yem di dem ci ay événement mais ñun lu ñu tëgg ñëw na dugal ci loxoom lu ñu tëgg ñëw na jàppale ñu ba barki dem bu FIPA bi mu ñëwee dafa toog di fanaan ak ñun di yendoog ñun jël programme bi ba mu jeex takk ànd ak ñun ci liggéey bi kon day xaar amuñu sa fay ma bëgg ngeen tàccul ma ko femme brave nit ku baax nit ku gore nit ku gëm boppam addina bi tollootul ci tëdd di nelaw addina bi tollootul ci di tàllal loxo kenn ku nekk la ngay tedde yaa ko war a ñaq boo fekkee jàmbaar yu mel nii da nga leen a war a yëkkati tatagal leen jàppale leen ndax ñi ngi jàppale seen askan tey ji li may gis ci Fabira rek laay xool ci moom di ko gërëm bu baax di ko sant di gërëmaat la présidente fabiraa Dramé di ko wax ni ñun de ñu ngi ci ginnaawam tey suba ëllëg ak ginnaaw ëllëg du nu bàyyi te du nu xàddi te du nu daw te fu mu nu yabal dinañ fa dem mais respect xaaju guddi fajar ngoon bëccëg waxtu bu ñu fëggee rek tëm nañu soxlawuñ sax dégg kàddoom kii rek doy naan muy sunu kilifa gi nga xamni moy mooy Bay na taccu len tay tey fu plateforme bay sawar ya ag rek loxo nga ca biir koy gërëm bu baax ndax ku ñemee rek dañ la deey sunu ñëwoon mu xatal ñu sunu ñëwoon mu ñu li nu bëgg tay duñ ko am ndax bu boobaa Fabira dinañu ragal waye moo ubi bunt yi moo yaatal moñu ñu moñu may doole kon taccu len ma iliman Bay ki len fekk ci du waxantou ki mo andal du waxantu muy sunu kilifa sunu présidente Fabira tay lu mu len wax fi tak len téere ta noté ko yeen di ngeen xamni bokku ngeen ci ñun ta nday xaar len na len ci plateforme bay aktivite bunyi te dootoo far ci jeex na ngeen japp ni yeen nga ci biir ci bép activité bu ñuy def ba ci foire international bi ñu jëm di fi pas 6 yal nañ ci yalla yobbu bu boba sen délégation ak sen car lañuy xaar Fipa pa ci monument de la renaissance yal nako borom bi subhanahu wa taala def di len gërem di len sant di gërem iliman lay xaar ma ngi lay gërem di la sant di wax ne tay dañu bekk ay ana togu togg bi man bi ma pare paralysé ndax lama ma ca jëla bari fir wi ñew di dàqeeti bay coppati te nan randal len taxul mo rand boisson bi ñew ak kanet yi vraiment yal na fay mbekté bi ñu am fi tay ah yal na len ko yalla delo ndax mbette bi tay yene moo doon ngeen bet ñu bet te ñun bég nañu nday xaar contane nañ ci yow ma sœur dila ñaanal sa yoon gëna a leer yalla sam la télévision bi ñukoy dégg fu sori ñukoy dégg fu sori ci jey Serigne Babacar si ma ngi gërëm ñep di sant ñep merci beaucoup. Euh, mbekté momu rek dañoo am mbekté double ndax nak machallah allah nga gane ganesi gane fi nit. fekk fi nouvelle bu neex muy suñu doom jooju macha allah yàlla may ko bagam muy Fat Mbàkke yàlla na ko jik benn liggéey du réer liggéey du réer ndax yàlla bu la ko fayul fay ko sa njaboot te ñun suñuy njaboot bu ñu réussir mënal seen bopp rek suñu xel dal na ndax njaboot boo gis xam nga lan moo tax njaboot ragal dee loolu la booy dem nga bàyyi koo xam ne amul dara yorul dara xamul fu muy wéeru dafay metti waaye nag bu la yàlla mayee ab dal yàlla may la ab vision yàlla may la ab ndëgërlaay ba nga tàggat sa doom ba nga gunge sa doom ci àdduna ba am ci lu mu jàpp santee ko waat ko borom bi kon bokk yàlla na la jikk may jël macha allah xanaa sopp naa ko ma jëlaat kàddu gi rek dañoo àndalaat suñu beneen coordonnatrice moom nag boo ko mu xam nga man voilà allah sama walo walo bi. Ya Seyda xamul ya kenn xamul foo koy nat bi <laughs> ci teg euh, borom poroxaan jaara buso te xam ne nag ñu ruwul turandoom nag waaw waaye nag ñu ngi nuyu ndey xaar bu baax a baax a baax a baax a baax am na fu mu commencé mais amul fu mu yem dalal nañu ndax ñun liñ naan gan kenn mënu ko teree xool ak ba ñu yegsee léppam la bàyyi daw yéeg wàcc ñëw defal ñu lépp ñun daal ñi nga daanoo ca ndékki la mbaa kenn santu fi ñang wala jaañ ca ndékki la lañ daanoo añ beeg di gërëm nag borom añ bu neex bi di gërëm yéen ñëpp nag ndax woote yombut woote ñu wuy si la te li ma fi gis dafa jafe te lu lu lu manqué woon la lu lu lu commencé raar ci jigéen ñi mooy booloo ànd moo commencé raar te macha allah yéen de ñun buñ mënoon tuxu si ñëw fii non dañuy tuxu si nag waaye nañ leen bokk ndey bokk baay rek ñun tamit yéen xam ne ni seen doomu ndey yaa nga dakaar ñu àndandoo di liggéey tey gërëm na suñu présidente nga suñu présidente dañu fekkoon ñuy nelaw man moom ku ma xam-xam ne bu naar bi laa koy def dama noo dama bëgg bu nooy waaye daf ñu ne jóg leen ci nelaw yi te ngeen bàyyi xoole beeg wax ji te liggéey kaay leen ñu ànd liggéey la wax newul xaar leen ma ma dem uti ji ñëw indi de dafa ne kaay leen ñu ànd liggéey uti ji bokk ñun ñëpp bokk macha allah mu ñemeloo ñu nag lool ñu koy gërëm nag di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg yegg moo ko xam yàlla na ko fa yàlla yeggal te di leen wax ne leen ñun de waa Dakar jàpp nañ ci Fabira waaye yéen ñi tam yéen waa Diourbel jàpp leen ci Ndeye Khar parce que Ndeye ji koy Fabira rek laa fi gis tey jii laa yendoog moom de mais gis naa ne fabiraa ni mu jàmbaaree bëggul lu baax bëgg lu mu am indil ko ay mbokk jigéenam Ndeye Khar loolu rek la fi def lépp lu mu am ci suba ba léegi ñu ngi waxtaan waaye lu ci ëpp nag ak yéen la mais jërë ngeen jëf ñun day ñu ngi sant di leen gërëm di leen ñaanal te wax ne nag li sama naataangoo bee wax sër yeeg fer yi loolu nag mooy suñu mooy suñu mooy suñu mbir de waaw nañ leen ci jàpp bu baax nag waaw di leen sant bu baax di leen gërëm macha allah di leen ñaanal bu baax a baax macha allah kontaan nañ. li ma jaaxal mooy suñu yaa sayda bi moom bu mënul woon wax rek àdduna tukki xam nga ngërëm gërëm nak day am commencement mais du am fin mukk ndax nak dañu ñew aussi fekk suñu goro wax deug yalla niñ ko gisee mu tay lool li soxna aw faal wax li soxna aw faal wax gan xeyna na mën nga ko xagn lu ne ba mu des bi ak bi lu rafet nak dinañ ko siiwal lu ñaaw ñu nës nësal ko waaye nag heureusement que ñun bi ñu fi ñëwee ba léegi lu rafet rek la ñu gis kon maman Dieynaba ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni nga taxawoo yow itam sa goro ndaxte tey bu fekkoon dañ lay sant sa kanam changer wala nga am noo comporté woo ah doo ñu tere lekk de doo ñu tere daat nañ ko def moom ba mu jeex ndax dañoo yenn waaye nag bu ñu dem dañuy yóbbaale une mauvaise image mais nag heureusement souriante légère susiap ouverte disponible yal na la yàlla yàlla la yàlla jàppale waaye nag waaye Muhammad waaye nag waaye nag waaye nag ah Mouhamed moom ah yal na leen yàlla jàppale ngeen ay at at tee ko nag de parce que nag jigéen ñi dañoo bari nga sóoraale ko waaye nag rek nga lépp dina baax te topp sa goro lu mu bëgg-bëggal lu mu bañ baña dégg nga ma lu mu bëgg bëggal lu mu bañ bañam té té borom kër sang la heureusement nak xalé yi légui dañu am seeni feeb mais nak jëlal ca mag ñu ñëk ñu gis nga pan bek ndox mu tang beeg carité be serviette bi wacc ah dal xam nga fima waxe gis nga goñu lu moderne moderne moderne dañu bëgg tradition ba de aha jigen nak bir néegam ñak jop ñakal ci mbum neex sa bir macha allah jom ma xaar ko foofu di ñëwaat nag macha allah yaa say daalaa nag de ange billahi mina sheytaani rajim bisi allahumma salli ala sidina muhammad wa sallim wallaay fii lañ ko fekk te nag ci ñun la sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam punya jar top yeneen yi ci topp yëpp nag ay kii sew la rek waaye nag di waxaat ni présidente gannaaw yéen ba mu leen xalaatee yéen jigéen ñi xalaat góor ñi xalaat mag ñi dafa xalaat ndaw ñi parce que xam nga moom la gëm relève te nit ci looy liggéey lu ne rek war nga am bu ëllëgee ku la remplacer te li ma ko doon wax ci njaboot gi rek. njabot gu aussi ci li ñuy nekk il faut ñu leen koy tagat di leen orienter bañu nekké xalé ba bañu ñu nekk mag bu ñu xaate ba ñu leen di comme ni ñuy def tubab légui def crèche wala tay machallah allah ñuy yóbbu ca alxuraan nga daara ja di leen jangal fabirana fofu la xalaté ba créer Fabira family moy xalé yoy nga gisoon ñu sol sen t-shirt yu verte té ñoñu dañoo am ay programme yoo xam ne macha allah dañ leen koy defaral dinañ ko commencé ci vacances yi mais lépp rek pour yaay yi bu ëllëgee bu ñu tëddee wala bàyyi tëdd dinañu mën a nelaw ba yàndoor parce que xam na ni am na ku nekk seen gannaaw mi ngi tudd Fabira di présidente plateforme Bay Sawaar di dugg ci avion yi di wàcc di dem di indi fàttewu leen ñu ngi ci biir programme bi du ci mën a sori ndax sama porte parole daf ma tagat tak ndax tay apprenti la ma tek daf may tek ci ray bi parce que nak bir plateforme bi non la so mënee dara da ngay tagat ñeneen yépp ci relève bi la rek ku nekk jema wone sa bop ñu xawa xal la yoon bi nga mën a xam foy tek sa tank mën a avancer mbay mbass contant na ndax lool nga ma defaral tay bu la neexon sa micro ya ka mom nga ne dedet duma ko ci xajal duma ko ci jox muy xaw a wane boppam yenn saa yi damay xaw a ëppal mais nag noonu la te mun ci dara ndey xaar moom xam na luy micro mais ñun ci jàng lañ toll ah ngeen ñaanal ma rek maam ci lu bari ah macha allah ma jël kàddu gi nag jox ko ndeysaan kii nga xam ne ki may bëgg a jox parole bi kii nga xam ne nag moom bëgg jox parole bi kii nga xam ne nag mooy Fabira Dramé Fatou ki nga xamni ni goru plateforme bay sawar ah ñu tuddé ko nak suñu goru mbotay waye nak moy suñu xarit suñu nijaay moy suñu alaaji ndax moy goru ngone ak goru faatu ki may bëgg wax moy ah le grand porte parole de la plateforme bay sawar et du monument de la renaissance nekk nak càmmiñu ndey xaar macha allah càmmiñu ndey xaar ba ma koy présenter ci foire ba daf mané japp ko ki sama jigen la kon bok kamay jox porte parole bi moy kan Alaaji eliman Mbay macha allah bisimilah. E, e, élève bi sut na maître bi. ndaamaan baa ci sunu nijaay jaa ngi ci lu ne wax parce que Baba mais laa ko toppee ne kii laaj na ñetti ginaar kii laaj ñeent ci tam xarit gi man moom na ma dóor ñaar rek. bëriwul mm. na yaa ngi dégg. te dina ko def ndax mooy suñu góor mooy suñu xarit. di nag di jaay Fabira di papaam di magam ci lépp ba du lool nag mbaa te muy wax rek ñoo yay ëppal ci moom ndax dañu koo ji du nu limité bu nu àndee moom dañuy mel ni fa suure lu nu neex wax lu nu neex def kon yow. mbay dañuy ñaan fan bi gudd lool barki sëriñ Babacar si yal na la yàlla sàmm maa ngi lay ñaanal bu baax yàlla sàmm la ndax bu la yàlla sàmmee yàggal la fii plateforme Bay sa waar ma ca kanam de waaye nu yàggal sa taxaw jërëjëf ñu bàyyi la jërëjëf aouzu billahi mina sheytaani ngi nuyu waa Jurbel yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa diine bi fi nekk di Cheikhul Muntaha al Bachir ma teg nuyoo bi ci loxoom yëpp mu jox ko sunu mbokk e, daara yi fi nekk yëpp nag di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e, kàddu gi nag Mbaaco maa ngi koy jël ci sama turu kilifa sama doom sama jarbaat waaye sama kilifa ndax tey mooy la présidente.

ni le préfet du département ni le maire du le premier magistrat de la commune ni le délégué de quartier Bifinek, ni un notable nous waaye les yi ak ulama yi nous, ci djourbel que kenn ko ci nek ngi lay ci sa tamit may sante wa Jurbel ci accueil ci Fabira waaye aussi di beral ak la présidente de Khar mu bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax euh, ku def ku def toujours présidente Fabira mais dafa am ne dañ koy fàtte wala koy mooy que président Fabira fu mu tollu tey ci àdduna ak fu mu toll tey ci plateforme Bay Sa ginnaaw yàlla ak yonent bi Ndeye xaar mii bay na ci wàccam bu mat solo ndax Ndeye xaar mii tey ba dara doonul woon dara président am yéene dugg ci mbir mii moom mii Ndeye Khar moo ko yóbbu ci télévision wone ko ba tey senegal ak àdduna yépp di ko topp kon li wax rek ni weñ wa nga bañee ca ba kon ginnaw yalla ak yonent bi ak suñu ñaanu wéjur ndey xaar participer objectivement tay ci la réussite de la plateforme Baysawar ak réussite ma sha allah ni diko sante aussi ci dalal bimu dalal ak délégation bi ñu àndal yépp ci mbaccio di suñu jarbat waxna lepp euh aja Adja <laughs> maam Diarra comme ni ma koy waxee di sama xarit di sama lépp ndax comme ni may waxee rek plateforme Bay sawar War famille la tey yàlla dafa def loolu Fabira réussir na ko tey mooy njaboot njaboot am na papa am na yaay am na doom am na lépp te ànd boobu aussi dañ ko ànd ci ànd bu rafet soxna Awa Fall moom di la présidente euh, donc euh, ñun ñëpp tey ñu ñëw fii tey fekk fi nag euh, la présidente Ndeye Khar nga xam ni li mu amoon ci yéene tey mooy lii nga xam ni gis na ko ca Dakar mu indi ko fii ci Diourbel kon loolu mooy bëgg sa bopp te bëgg sa bopp mënta weesu bëgg sa gox bëgg sa réew kon Ndeye Khar mi ngi ci ndax mi ngi ci ndax entreprendre na entreprendre mooy créer télévision bu mag bii tey nga xam ni wër na àdduna sànq la ma doon jox lien bi nga xam ni tey àdduna wër ngeen ñëpp di ko di ko mën a seetaan kon tey Ndeye xaar duutul fierté wu Diourbel waaye fierté wu àdduna la te loolu yëpp tamit yéen yéen ko ci gunge waa Jurbel ndax benn lam du yëngu te yaakaar naa ne aussi borom kër ak borom këram ak njabootam aussi participer nañ ci objectivement ndax suñ ko tere woon du dem su ngeen ko xañoon aussi du mën a am kon yéen ñii di ay ay ay ay ay goroom di ay borom këram di ay dëkkandoom kon fu nday xaar yegg rek yéen tamit am ngeen ci part de responsabilité ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen déplacement bu am solo bii ngeen def plateforme Bay Sa nak kurel la go xamni ni comme ni ko ñëpp waxee président Fabira moko créer muy kurel go xamni ni nak da fay fekk dara fekk fu am dara mu yok ko fekk fu amul dara mu def fa dara muy kurel go xamni ni nii partage la kurelu bokk la kuréelu jappalante la ndax nekul xaliss bu ñu yëkëti di joxe waye li ëpp solo moy kenn ku ci nekk la nga xam ak la nga mën nga mën ko bokk ak sa morom mooy tax ku ne mën mooy tax ku ne am bu kenn ku ne bokkee ak sa morom la nga am kenn ku nekk bu bokkee ak sa morom la nga xam kon yaakaar naa ni kenn ku nekk dina xam kenn ku nekk dina am kon loolu moo tax présidente Fabira ginnaaw expérience yi nga xam ne am na ko ndax ba mu doonee ndaw la commencé di dugg ci avion yi di liggéey gis ni tey africains yi ak artisans yi ak sénégalais yi dañuy am jafe-jafe pour mën a liggéey mu ne kon incha allah su ma dellu siwaate fii ci sama réew dinaa créer kuréel goo xam ne nii tey képp kuy jigéen képp kuy artisan moo xam góor nga moo xam jigéen nga moo xam ndaw nga dinaa mën a partager ak yow expérience bi ma am ba bu ëllëgee xëy na la doon jafe-jafe-jafe mu wàññeeku kon yaakaar naa ni dafa nekk loo xam ne nii lu noble la parce que comme ni ma koy waxee yàlla li mu gën a bind yëpp bëgg yëpp doomu aadama moo ci raw kon képp ku jàppale doomu aadama rek sunu borom moo lay fayal boppam kon incha allah soxna Ndeye xaar mii tey ak la présidente Fabira nañu séntu fay ak sunu borom. te xam naa ne fay sunu borom moo gën ngeen gi fay yàlla leen yàlla def ngeen tal ko fekkee ko ci barke Seydina Mouhamed parce que dafa am solo parce que plateforme Bay Sa kuréel la goo xam ne nii xëy na ni koy nit ñi di yaakaaree sax ëpp na foofu parce que kuréel goo xam ne nii daf lay jàngal d'abord ci wàllu formation parce que tamit boo mënul xamoo doo def donc lépp looy def ci àdduna rek day fekk nga am ci formation bu dëgër boo jógee ci formation bi plateforme bi daf lay gunge gunge la ba nga mën a produire mais ce produire aussi tamit daf lay gunge ba nga mën foko mëna écouler lolo tax at mu ñu monument de la renaissance africaine lu ñuy des foire internationale des produits africains Sénégal diko organisé, organiser président Fabira diko organisé, organiser plateforme diko organiser y nak 30 pays africains di ont di ci le lolu ndamu Sénégal la ndamu Afrique la xaar ñi participer ci objectivement yalla nako yalla fay et lolu motax tay président présidente Fabira délégation plateforme Bay Sawar ñëw fii sargal ko ci li mu liggéey parce que nag yaakaar naa ni waaw góor baax na ci ku liggéey mënoon nañ ko def fële ci dakaar mais président dafa ni woon moom du ko defee dakaar day ñëw ba fii fii ngeen nekk yéen nga xam ne moom nii tey yéene bi mu am tey mooy lépp lu mu am ci expérience mu partagé ko ak yéen looloo tax mu ne moom tamit dina ci profito ñëw ci seen kanam yéen ñëpp ñu sargal ko wane aussi tamit liggéey bu rëy ak bu mag bi nga xam def na ko ci FIPA mais aussi def na ko ci plateforme Bay Sa Waar kon yàlla la yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te incha allahu rabbi présidente nekku fi waaye yaakaar naa ne mel na ni mu ngi fi ndax ñi ko fi teewal tey engagement bu nu fi jël incha allah dina ko def te la ñuy njëkk a egg mooy comme yéen a ko waxal seen bopp yéenay defar sër yéenay defar euh, euh, ah. defar boobu ngeen di defar tey incha allahu rabbi plateforme dina leen ci gunge ba mu gën a ñoŋ ba nga xam ni tey su ngeen ko parce que maa ngi joxe toujours exemple ci benn femme bu dëkk Géejawaay yàlla dafa dogal femme bi dafa dëkkandoo ak ay ay ay ay moroomu jéegam ci koñ bi bu ñu xëyee ñoom am na tuuti koom-koom dañuy dem marché poisson jënd ay jën ñëw di ko jaay. moom bu xëyee yàlla dogal amul lu mu jëndee jën xam nga nu mu def bant la wut daaj ci ay pont toog ca marché ba ku jënd jën mu waasal la ko loolu la créer entreprise boo xam ne nii tey mi ngi wër àdduna di waas ay jën ci ci noonu la ko tàmbalee kon loolu tey mooy wane ni entreprendre am na solo te doomu aadama bu ne am na luy nelaw ci yow yaa ko yeewul plateforme Bay Sa War nag ak Ndeye Khar mi loolu la bëgg tey lii nga xam ne dafay nelaw ci yéen moom la bëgg a yee wane ni tey amul benn liggéey boo xam ne nii munoo cee suturlawu sutur ci sa njaboot dafa fekk rek xëy na bunt yi ñoo ubbeekuwul te ndey xaar dina ubbi bunt yi incha allah ubbi bunt yi nag mooy boole leen ci plateforme Bay Sa Waar nga xam ni kuréel la goo xam ni wax naa ko sànq dañuy partager bu dee information la bu ñu nee tey foire am na Chine. bala ñoo tëdd ci lal groupe lañ koy dugal te groupe bi ku ci nekk rek di nga xam ni foire am na Chine di nga xam ni foire am na Burkina di nga xam ni foire am na Diourbel te présidente Fabira ak expérience bi mu am mooy tax tey foire bu am ci àdduna dina xam lan moo fa war a mën a dox te loolu daf ciy gunge ay membre am dinañ créer benn foire bu nekk Burkina ñu ne ah Burkina day la fa ëpp solo tey mooy ay ñaw bu ko defee yow mi nga xam ni ay jën ngay jaay mën a goo valable donc il faudrait que ngeen formel formel bi nag mooy nga ut say ay këyit say këyit nag c'est pas évident yombul du dëgg mais daf ko gëm nit ki nag il faut nga am conviction il faut nga am engagement yàlla nag boo engagé woo ci dara te muy lu baax dana la ci fekk ndax yàlla moo moo wax lool lu mu bind doomu aadama bi ci gënal kon doomu aadama bi tey su bëggee wala mu sabablu ci loo xam ne ni lu baax la da ko ci jàppale kon macha allah xëy na peut-être li ñu bëggoon a wax yëpp mënuñu ko wax ndax li présidente yóbbante woon lépp xajul ci jataay bi xajul ci làmmiñ bi xëy na dama koy tënk nii rek mais la ci ëpp solo daal mooy di leen sant di leen gërëm te cant gi yëpp nag dañ ciy jiital suñu sœur suñu jigéen suñu xarit nga xam ne man moom dañu am affinité bu doy waar yàlla xam na

donc tey man amoon naa cawarte lool sax pour ñëw fii tey wan leen li nga xam ni moom liggéey na ko ci plateforme Bay Sa Waar liggéey ko ci FEPA moo tax tey présidente jëloon décision ñëw sargal ko ci kanamu ay mbokkam parce que loolu moom la ci yéene woon mais nag wax nañ ko sànq eh, yéene bi am na mais tamit sunu borom mooy mu am gàllankoor de dernière minute loolu aussi sunu borom moo ko moo moo ko def xëy na nii la ko bëggee woon mais la ci am solo ñu war ko retenir daal moy ñu ngi koy sant sant boo xam ne nii xam nañu ñun amu mu tàmbale waaye xamuñu fu mu yem ci taxawaayam ci engagement ci jàppale aussi bi mu jàppale te dara lalu ko lu dul ngor ak kóllëre wax naa leen ko sànq fu plateforme bi tey toll moom mii am na ci part parce que tey mënoo créer kuréel te amul vision te amul communication communication plateforme Bay Sa War la ci ëpp solo moom moo ko def xam nga loolu yombul déplacer ses matériels, déplacer ses nit nous teg ko mettre à la disposition kon ndam bu ci aw rek ci de responsabilité kon yalla la yalla fay ñun xeyna amuñu sa fay mais yalla mi nga xam ni fay doomu adama yalla nañ la suñu borom fayal te limu lay fayal yépp nak yalla ko ci sa njabot ak ñi ngeen ci sallallahu alayhi en tout cas euh, xol bu sedd lañ ko et yaakaar aussi ñii ma tamit confirmé parce que ni nday xaar ñëpp xam ni la ñëpp xam mais aussi ñëpp xam nañ ku bëgg fi mu dëkk la ndax bëgg sa bopp weesu bëgg fi nga bëgg sa mbokk ndax tey bu bu ko aussi mu yemale ko foofu ñëw tëdd ci biir néegam jàpp mais moom insister tout le temps ci man de dama bëgg waa ci plateforme kon loolu aussi moom macha allah Euh, mention spéciale comme ni ñu koy waxee ànday xaar ànd bi mu ànd ak yéen nag yàlla bu ngeen ci am dara lu ngeen ci réccu et incha rab bi officiellement dinañ fi ñëw ak formation boo xam ne nii dinañ ci waxtaan ak moom jàpp bés boo xam dina ñëw former leen te buñ leen former aussi ba pare day am suivi ba pare loo xam ne ni di ngeen ci mën a liggéeyal seen bopp mais aussi di ngeen ci mën a liggéey pour votre avenir loolu rek laa xam ne tey moom laa indi woon ci turu présidente Fabira ci turu délégation bi ñu àndal ñun ñëpp muy baat boo xam ne mën nañ ko résumer ci cant ak ngërëm loolu rek daal mooy tànk yi cant ak ngërëm du ñu jargeel suñu jigéen suñu xarit sunu jarbaat suñu lépp madame Ndeye Khar macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina sallam am na solo waaye nag ànd na ak émotion ndax eh, lépp lu wax rek xol lañ ko waxee te lu jógee ci xol ci xol rek lay dellu kon boog yal yalla yàlla ngeen bàyyi xel nak bu baax ci li len euh, porte parole wax ndax fi pa dafa am importance ndax ni ngeen defé sen nak comme ay nak tabaski nak nattu korité nak nattu koñ non ngeen koy naté mu gëna yomb ci yeen ndax bu boba dina len mëna permettre kuréel gi yëpp du mën def mais au moins dinañ tànn ñenn muy ñaari nit muy ñeenti nit ñuy assister année bii bu kiy demee année bële keneen dem keneen dem ndax lépp rek ci li ko jaara tënkee l'union fait la force te ku bëgg union il faut nga xarale nga séddale ba ku nekk mën a jot ah macha allah lépp ci bëgg lépp rafet rek lépp bëgg rek ci yéen ngeen yegg moom fu mu yegg ba dépassé ko loolu rek moo ko ñor nag ndax du tey la ko commencé wax yàgg na ko wax xëy nag yàlla nii la ko dogale présidente amoon aussi tamit yéene lool ñëw deux fois de suite mu programmé ko yàlla wet waaye nag looloo gën parce que lu gën rek la yàlla di di def di wax nag ku ci am question aussi ci yéen ngeen bëgg xam lo bëgg rek bismillah micro bango ñu jéem ci ñu ci bu jàppee ba léegi bawul man Astou Dieng la tuddu ay xaar fay moma yar yag na ak mom torop té nama ko xamé won deen ba légui non la nekké ma sha allah yalla yalla guddal sa fan nga yag ak ñun ñu téru la màkkatal mukarram nuyu ñepp di leen sante di leen gërëm. Eh, na dencal li ba waa baax na ñun kay xanaa dañuy ziyaar rek di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci yoon bi di leen masawu ci coono yi. di sant nag Ndeye Khar Faye bu baax ndax bu nu sante yàlla bu baax ba mu ñëwee kër Yelli ba tey jikkoom ji nu ko xamee woon ba tey moom lañ ko xamee dara ñaawul te dara du mës a ñaaw ndax Ndeye Khar benn jikko la yor barki sëñ Touba bu demee ñëw ba mu ñuy dajale fii ne damaa bëgg ngeen yëkkati benn avec di liggéey lu ngeen am bokk xaalisam la yëkkati def si leket gi tey tamit tey firndeel na ko mi ngi nii yëkkatiwaat na xaalisam def si leket gi ne dama bëgg yeen ñëpp ngeen bolo doon ben man dama koy ñaanal barki sayidina muhammad li nga am ci ëttu jangeen bi yal nang nga ko muurloo barki sëñ fallu yalla bayila ak suñ càmmel ñi ndax nga bax ta gore ndey xaar nitu demb nga ba nga jappé ba tay bawo barki wala boobu. ah loo leen bëgg ñu lan ngeen bëgg ñu jàpp lan ngeen bëgg ñu def comme ça bu ñu demee ñu mën ko yeggale. waaw ñu ngi demal seen bopp de te ñuy am seen kees <laughs> waaye tamit yow dem katu luuma laa 5 heures du matin laa yeew ak 4 heures du matin di dem luuma di jaay su luuma su événement màggal amee gàmm maa ngi tuubaak ci waawoon di jaay teg samay sër samay fer di jaay ñun ñii ñëpp nag loolu la ñuy liggéey boo ñu fekkoon ci waawoon wala màggal nañu ñun ñii la ndax ñu liggéey rek lañ xam indi ci suñu kër jàppale suñu boroom kër kuñ ci jàppale moom lañ bëgg Euh, sunu goro bii di wax élève la woon da doon jàng su ma yeboon ni xanaa kër moo tax mu bàyyi jàng ak njaboot bu sew jàng na ba am diplôme kon kooku ku ko jàppale mu jël ñoom ñaar ñi taxaw toog ni yëpp ku am sa diplôme ku leen ñun ñi toog tamit nekk ay jeeg ku ñu jàppale ñu jël ñun daal loolu mooy suñu wax ñoo ngi ci ñoo sa ginnaaw ñoo ngi ci ginnaaw nday xaar lu mu ñu lii nag ñoo ko def ci soxna yi wan leen ñun li ñuy liggéey da ngeen ñoo bett sax nag fekk ñu lii waaye nag yii ay kuppati la ñun ñoo koy liggéey buñ ko teeloon a yëg daf ñoo bett ñu programmé ko kon di ngeen fi fekk leneen wan leen leneen lu ñuy liggéey macha allah macha allah xam nga porte parole dafay baax nag aussi ak euh, VF plateforme bay sa war may leen journée de reportage parce que may leen journée de reportage bo xam ni bés bi nga xam ne dañuy ñëw di leen may formation parce que man lima gëm nit du am benn métier yéen dëgg la tabaar fakàll ngeen sër mën ngeen mën ngeen fer waaye naka jaara waxee ci madaar ba wax ko ci eau de javel ba cosmétique baa nga fa cosmétique bi da ngay defar diw da defar à froid da ngay defar lipo da ngay defar gel da ngay defar euh, lave-mains da ngay defar shampoing te yooyu yëpp dañuy ñëw defar leen ko non seulement dee ak massage parce que am na ay frotté yoo xam ne tamit dañ koy def ba mu baax ah léegi nag boobaa boobaa boo lëggee VF mën na leen organiser petite foire fii sax boo xam ne ah parce que loolu la waaw waaw jeex na bu soobee yàlla loolu rek ñu def ko ñu def boo xam ne panel foire la wallaay ku la liggéey la mu nekk xam nga loolu neex na. barakallah ah, il faut nga xaw a jàng rak du noonu bëgguñoo guddal ndax yoon bi daf ñoo jàpp ma jox rek kàddu gi encore jébbalaat ko porte parole ah ñu ñëw ci soxna si nag macha allah jaara kon nag euh, vraiment di santaat encore une fois de plus.

ñoo ngi leen di santaat encore bu baax di leen gërëm te di leen wax ne aussi tamit lépp lu ñu fi wax muy suggestion lépp lu ngeen fi wax comme xalaat incha allahu rabbi nun ay lantinoor lañu du ñu tee diw bu ñu yeggee ca présidente nii ñu toogee ak yéen la ñuy toogee ak moom wax ko lépp c'est vrai que nag bon ñun dinañ ca yokk nag sunu grain de sel parce que tamit vraiment ku gis ne ni nee na ngi donc tey fi mu nekk nii jàppale tey waa Jurbel moy jàppale Sénégal ndax tay li ngeen di def tay wóor na ma ni suñ ci indaatee beneen touche war na mën a dépasser fii te donc je crois que Ndeye xaar vision boobu la am tey comme wax nañ ko fi sànq mun nañ fi créer ay foire yoo xam ne ne ay foire régional lay doon foire départemental lay doon ça dépend parce que ay innovation la rek ay xalaat la rek te loolu lépp tey mën na ñëw ndax tey kii nga xam ne tey moo wane présidente Fabira ba mu toll fii mu toll tey bu jëlee décision ni dina leen wane rek macha allah yàlla na ko yàlla la fay te xam naa ni aussi dina ci egg ndax euh, wañ bu nekk ci benn lay tàmbale fii la tàmbalee te incha allah njeexital gi aussi tamit mooy bu ñu fi dajewaatee fii ak déwén kenn ku ci nekk gis yokkute ci sa bopp ba yëg ko te yàlla na ko sunu borom def looloo taxoon tey nag la plateforme Bay Sa War ak présidente Fabira décidé woon ni tey dañuy ñëw sargal sunu rak sargal sunu xarit sargal sunu jigéen di ndey xaar mu ngoog indi ma loolu ñu ñu ñu ana borom kii bi waaw mais nag il faut ñu il faut loolu moom am bàyyi il faut. ah ñu ngi ñëw nag ki nga xam ne nag. waaw benn allah wax dëgg nee na amul sa fay présidente Fabira nee na. fi nga ko def la def ci biir xolam président nee na ndey foo jublu fu ne yàlla na fa yàlla jublu président Fabira nee na ndey xaar yow amoon sa dara du xaar gis nga sa ko waxee nag beneen sens la ko jëlee sa lépp bu soobee yàlla lam ca mën ak lam ca mënut lam cay waaj a mën ak lam cay mëni lépp macha allah dina ko indi mu def président Fabira xolu kër gi sédé ñu xolu doomi sédé ñu xolu ñëkkay sédé goray sédé ma sha allah ma jox ko rek sama rak ji. dañuy xaw ko tubab di waxee du mom du porte qui ci nday xaar ndax li ñim koy defal wul en tout cas mom mom lañ koy defal sa su nekk muy Fabira Dramé. mom xamna fim ko fété respecté nako ta jox nako cër lolu wat nañ ko Jurbel yen Jurbel gëm leen ni Fabira Dramé mi defal lii ndey xaar defalu kooku yéen la ko defal na ngeen xam ni seen doom ji jàmbaar la ndaanaan la barke Serigne Babacar Sy lii ku dul jàmbaar doo ndaanaan duñ la ko defal wala yaa koy defali ji sa bopp ndey xaar dafa nekk quelqu'un boo xamante ne xam naa ni Fabira respecté na ko nag ñun dañoo yàgg ak moom xam ko forum rek la ñu xam ku mu jox cër rek xam nañ ko ci jamono ñëpp la jox cër nag ndax boo jabootee da ngay maasale ñëpp waaye na ci ñoo xamante ni am na fi nga leen di teg. danga koy wane par signe te li da koo wane kon tàccu len sen bop nday xaar yaay jambar Fabira eh, mo des góor mandargal na mhm. la plateforme Bay vous remercie pour l'excellent travail que vous avez fait. Allah macha allah. na la jig. <laughs> barke Serigne Touba Mbacke ndax chaque jour dañ koy defal waye nak li naan bay sa wew tànk. fii la ñore fii la safe macha allah lépp li ngay jeex ci sunu kër nijaay gi yal na nga ko yal na nga ko am barke Serigne Touba ak ñëpp la ko yéene nag yaa ñàkk ñaan yaa baax borom xolu jamaa bi chaque jour la koy wax ni randu yal na dee wopp ñu cat yal na dee wopp saytaane randu eh doomu mbër day nuru mbër law ngay teey eh teey leen daan ak teey liggéey ngay dañe ma yëngatu yaa laal sama jinne ma yëngatu déedéet ma yëngatu eh déedéet ma yëngatu ku dul sa jinne nga yëngatu yaa sama jinne ma yëngatu bare ñu yëngatu loolu ku nga yëngatu te lépp neex na te mot de la fin bi dañ la koy jagleel ndax gërëm ñoo ñëw noonu la sa xol ndax tey liñ fi dégg lépp témoignage yi fi dégg lépp macha allah lépp neex na kon boog dañuy ñaan yàlla suñu borom rek yàlla yokk laa dooleel sa mbébét ba nga am rek yàlla na yàlla mottali yàlla na sëñ Babacar mottali yàlla na sëñ Touba mottali yàlla na Cheikh Ibra Fall mottali macha allah ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ma jébbal ko kàdd gi rek muy mot de la fin. incha rek xanaa vraiment émotion bi dafa ma jàpp sax ba euh, dëgg yàlla jot naa sargal bu nekk nag. ndax tableau yee ngeen di gis ak ya ma juug ca kaw armoire bi je crois douze ñoo fa nekk ak yi ma juug fii nga xam ne xaw ma nu ma koy def yaakaar naa boo ko xoolee sa xam ne bii moo ci ëpp jëmm fuuf loolu dafay ci communication li ñu jàngal mooy objet dafay wax geste dafay wax xool dafay wax lépp dafay wax mais tableau bi ça parle donc tableau bi symbolisé na cofeel yi Fabira am sama diggante ak mom symboliser né aussi yek bi ngeen yek nday xaar yéen wa plateforme Bay Sa war ak wa FIPA waaye aussi sama jigéen ñi ma ëlbatiku jagleel leen ko bo gisee mëna sama jigéen man bañ na ko samay mo góor du góor du ci bok sax du ma leen ci sax bolé man féministe bu mag la donc parce que limay ma sama bop rek la leen yéene xeyna peut-être contexte yi des fois réalité yi mo ñuy tënk société bi mo ñuy tënk waaye incha allahu rabbi comme plateforme Bay Sawar ñëw na je sais que fi ngeen bëgg a àgg yëpp incha allahu rabbi di ngeen fa àgg parce que loolu rek toog ba xaar dara ñëw ba jàllale la rek moo jafee mais bu xasee ñëw rek saye te euh, Fabira du waxantu lu mu wax da koy def xaw ma ban defa la am ci àddina te defam xaw ma ko parce que ko bokkal liggéey ak fulla fayda ci li ngeen di dox tant que yéen a ngi ciy nekk leneen du mën a feeñ te gisuma tamit lu aay suñu diggante ñun ñaar gisaluma ko ko xamaluma ko ko lu dul lu mu wax da koy def te du yëndal du fanana Fabira du noppaliku toujours mi ngi daw partenaire partenaire famille famille famille famille bay sa waaral pipa ci loolu lay daw su ba ngon jot man fogon naa man maay numéro un ci fitna ci daw mais mom bu mu ñëwé bu mako ko toujours damay fàtte sama bob donc xam leen ne na seen xel dal inshallah rabbi ci sargal bi lu nekk dina fi jaaree sobé yalla dugg si jëm si ci ñun waa njaareem mais nak dina gërëm vraiment délégation bi sincèrement parler parce que mënoon nañ leen tamit yabal ngeen cof ma bu ngeen ma cofoon nit bu ngeen ñëwee dinaa leen teral waaye dinañ dajewaat te bu ngeen bu ñu dajewaatee man ku ma cof ma cof mais nag defu leen ko waaw mi ngi noonu nag tubaabe gi tubaabe gi yëpp dañ ma koy jiiñ rek waaye nag euh, tuuti kàccoor am na ci man waaye dafa patak organisé moom xam nga boo ko defee rek yàlla da lay dimbale ci lu baree bari daal lu bari du feeñ euh, moo togg ceeb bi neex na <laughs> mu ñàkk ki ñaan lool du ko sóoru benn jeeg ñun du ñu nekk ko sóoru benn jeeg ba ba ñuy dee te du ñu ànd ak koo xam ne tamit day ko sóor benn jeeg waaye dafa tëj këram bàyyi ay sixam bàyyi mosam ci togg togg bi li ma defal ne yow moom ngeen waa jënd dama toujours fële bala ngaa daanu sama kaw naa la say garab da nga dem toog di gërëm sama goro nag maman Dieng ba maman Dieng bu ngeen déggee ne nday xaar feebar na rek ma Dieng ba ndax su ma jegee sama lekk sama régime samay garab da koo xam à la lettre comme montre dara du ma war bu ma wëree sax daf may sang dugal ma si douche bi sang ma loolu doo ma kuta di ko wax nag ne ko soobee yàlla man sa goro de ñaanal naa la muy tey muy suba muy gannaaw suba man ñaanal naa la te sama biir xol bi nga sax nag te keneen mënatu faa ñëw tëdd ko bu yow ah déedéet nit da wax dëgg rek te yàlla tax moo gën ci man moo gaaw ci man mën naa ko yónni fukki yoon day jóg dem day daw rek xam naa nag kii moom psychologue la moom xam naa ne moom dafa nand ne dafa fiir ndax xam nga xamoo boo amee xale bu góor bu jongo ma jëkkër ju jongo ma noo mënti def jigéen ñi dañuy ñëw di ko xëccoog yow waaye nag doo mer doo def dara yaay diiñ indi yëfi maam teg wéeru ci sama ginnaaw te xam ne maa leen bokk ñaboote lu mënta yegg ci sama doom mënta yegg ci moom te di ma téye sama doom yi laa leen téye bañ naa ko ba nit ñëpp jëwee nañ ko ne moom laa gën a bëgg ni Faat Mbàkke sama Faat Mbàkke mi jóge ci sama biir bi ma gën koo bëgg kenn ma gën a bëgg keneen ku mi moom kon kooku bëgg naa ko kon moom na am jom na am na xam fi ma ko teg na xam fi ma ko teg mu nekk kër yaayam fu mu mënti nekk ci àddina jamono ni mel rek ndax kenn bàyyiwul kenn mu ne ci jàmmam waaye na xam ne fu mu mënti nekk sama gërëm mi ngeeg moom bëgg naa ko ndax lu ma mënti yëkkati dama naan ko ba maa jene ba bàyyi li ngay def nga ñëw bu fi nekkee bu fi nekkul sama goro la benn goro la te benn goro boobu laay am ba ilaa yu mu diin mu bañ fee nekk amet am kenen wala mu ñak am ma ma jene ba yalla bo nañu wala yalla tagal ñu te yalla bu am moom mi mo xasa ci sama xol bi benn goro bi lay am te du ñaar du ñet xana leer na voilà <laughs> waaye nak di gërëm di sama sama caat me sama caat me nga xamanteni ni nak ma sha allah bëgguma sax di wax ci mom parce que dafa jël sama jikko maanu réglé macha allah yàlla na ko yàlla dafal cat gën la am jom rek gën a la tëju fi nga toog toog fa rek nga gën a am jom sa ndey demul dikkul bu jógee rek daa liggéeyi yooyu booy jóg na doon fulla ak fayda te ku lay xaar ci leen bu mu la ci gis faatu maa ngi la koy ñaan ni ma toogee stressé mel ni ku doon wasin ci sa bag bi ba yàlla may la ko yàlla na la jig waaye yow it nag may sóoraale foo mënti toll ci àddina da xam ne sa yaay ah <laughs> donc di gërëmaat waa koñ bi di gërëm sama goro sama goro bu jigéen bi jur sama borom kër des fois sax dañuy toog ñu ne ma maam rox nga gën a bëgg sa yaay ma leen waaw maa tey te dëgg la sama yaay xas naa ko bëgg ba pare moom ma jur mais sama goro dama koo bëgg te yàlla rek tax ni ma ko bëggee ci communication bi li may mën a composé moom mënu ma koo composé sama yaay ni ma ko bëggee c'est parce que acier la ni mu ma bëggee laa koy delloo yàlla ñu la fal cat te nag dama koy bëgg tamit ba ilaa yu mi din dara mënu ci dara kenn du ko dindi bu yalla di gërëm wa koñ bi di gërëm ñëpp papa malik gey nga xamanteni moy sunu kilifa papa Zal jeeg jëpp di gërëm ñëpp di gërëm eliman sunu goor di gërëm délégat waye nak di gërëm présidente Fabira lépp mom la nak sincèrement parce que bu ñàkkoon ki ñaan du du ne damay ñoo sargal si la ndax nit boko ko bëtt wala mu soof ci ci say bëtt wala amoo ci moom benn kii doo ko sax lijjanti ba naan danga koy sargal kon sargal ku la ko defal rek defal na la lépp sant naa leen gërëm naa leen yéen yéen ñàkk ki ñaan yéen waa koñ bi fu ma wootee ngeen ñëw mënu ma leen a jox lu ngeen amul waaye chaque jour yéen gi taxaw kon xam leen ne damaa bëri defoo nag dama koy reconnaître bari naay defoo lool waaye sama defo defo defo defo sama xol bii laab naa ci yéen ñi ñëpp waaw pour ngeen xamee ko noonu na ngeen jàpp nag fu ma jëm rek nañ ci nañ dem te xamna rek buñu démé dinañ ci am dam bu soobee yalla donc ñi fu ñu wo nañ leen fa fekk ci parce que organiser wu nañ ay at ba am 11000 membres 11000 membres du ay fo 11000 membres xajul njaareem donc au niveau international la na ngeen ci bok luñ ci cër ngeen mën ci gis seen bop luñu jallale ngeen mën ci jall ni ñep man daal lool la amon lu may wax vraiment di sante ñep di gërëm ñëpp di gërëm sama taw bu goor be tamit moom xam nga waxam wu dañ koy fàtt sax waaw yàlla na ko yàlla soppi ndax muy wax <laughs> di gërëm ñëpp wa salaam di gërëm nag sama borom kër nag ndax na dañ koo tàggu nag mu bàyyi ñu suñu tere woon duñ ko mën di gërëm ñëpp nag samay dëkkandoo yëpp wax dëgg yàlla merci beaucoup kontaan naa <laughs> de la fa léegi nag lu moo ci des xaj na mu léegi sëriñ nag